bo bëggee information yi wóor abonné ci seen bi la Fall Léral du baax mo joxe information yi wóor ci jëmon kon noo ngi siaré bu baax suñu wajur wu tedd wi nga xamné mom moom laan àndal jataay bi di señ Mbay Ngiraan mu señ Mor Mbay sé nga xamné liggéey bi ak barab bi bim koy xéñtu ak di ci wax ak di jàngale taarixu histoire dëkk bi ba mboolem ñi koy top ci biir réew mi bintu bitim réew ak jumtuwaayu xare la yëpp di ko ci top ba ñu bari ci mom lañ xamé xuru mbacké deug ñu bari 8 ans yi fi soxna jaara nek ci waxtaan ni Baye Mbaye lañ ko xamé ba kat yu bari jog di ci topat yalla dogal mbokk yi fi nek sakku won ab jotaayam fi tam mu am setembohan, yu bari yu ko soxla ci waxtu wi mu am sëtam bo xam dafa wacc liggéey tay mu yendu ci waye momit liggéey ñor ko lool xuru mbacké ñor ko lool ndax lepp serigne Touba mom kilifaam da ko ci doon liggéeyloo te mooy sëñ Mame Mbaye Cissé ci gëstu sëriñ bi ci xam ko ak xamle ko ak jëm ci ak jëmi ci tey nag mu bokk ak ñun jataay bi kon du nu bëgg a sori ci kàddu yi dañu doon ko ubbil kàddu yi rek di wax nag ñu teewlu waxtaan wi bu baax ndax alxuraan daa wax ne allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina adahumullah wa ulaika humul ulul albab alxuraan daa teg ñi nga xam ne bu wax jógee dañ naan teg di déglu di xool yi ca rafet ñu di ko topp alxuraan nee na ñooña ñoo ñoom la suñ boroom jox ak njubam nee na ñooña ñooy borom xel ya kon loola nag la koy mane may mën a maye mooy teewlu waxtaan wi ak déglu ko te bañ koo dégg rek nga xam ne dégg gi ak déglu gi du benn ñaan suñ borom loolu ci alxuraan dëyale ñu am ko kon ñu jox kàddu gi bay mbay xanaa nu delluwaat jëkkati am nuyu bu ànd ak siyaara rek ak ñaan yéem ko ci sëñ Abdou Fall moom suñ mortaala mii toog nu ñaan suñu borom yokk ko ak wéram ak aw fanam musal ko ci ndox ak ku ko ko yéene ak kum ko yéene moom nag yéene ne ko ñëpp Fall nuyoo boobu mu jàllalee na ko ci sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda mi nga xaye moo toog jotaayu Cheikh Ibra Fall su ko defee sëñ Amdi Moodu Mbenda jàllaleel na nuyoo boobu ci ki nga xam ne mooy sayuxu suyuxi sëriñam sëriñ si ci jamono jii nu ne di seex Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassir nuy ñaan ñoom ñëpp suñ boroom bàyyi leen fi te àggali yéene ci saayir ak ci baatin di yi itam nag waa dëkk bii rawatina waa <coughs> waa Ndiba gii ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu bari nekkoon fii dem nañ bàyyi leen fi waaye ñoom yàlla dogal na ñu ngi fi toog rek ba bi sa tey jii loolu am nañ ci mbégte bu baax di leen ci sant di leen ci ñaanal ndax su ngeen defoon ne maam ya fi nekkoon gor suuf sii seeni sët ya ko wan gannaaw dem su ngeen defoon ne ñoom kon buñ ñëwee duñu fekk kenn waaye yéen a góor toog fi lu leen fi mën a fekk ngeen muñ toog fi ngir yàlla ak sëriñ bi kon na ngeen góorgóorlu te xam ne lépp lu nit di soxla ci àddina dana waaxu ba fekk leen ci pàkk bii waaw loolu moom na ngeen ci góorgóorlu bu baax di ba lépp lu nit di soxla ci addina dana waaxu ba fekk leen ci pàkk bii ndax pàkk bi pàkkub sëriñ bee ginnaaw pàkkub sëriñ Tuubaa la nag euh, te jëf nañ fi jëf joo xam ne ju ñëpp seere la ju ñëpp gis la itam te suuf si seere na ko kon yéen na ngeen fi toog rek waaw lu mën a metti lu metti metti rek bu leen ndaw toog leen rek yéen na ngeen tooge woon rek seen way jur ya toog ko ñëpp dem nañ baleen fi da ngeen wéttaliku insha Allah, tabaraka wa taala wa dekk bu mag lay muju don am ay lamp am ay mbedd am lepp ndam dara fi am lu am ci dekk rek dana am fi wa insha allahu tabaraka wa taala kon nak noo ngi leen di sant bu baakha baakha baakha baax cant su amé fum tambalé amul fum yam ah fi nak xurumbàkke so Ahmadou bintakan Modou bintakan mi nekkoon njag yi ak soxna Anta Sali Kan mii way jur sëñ Mamar Anta Sali mii ak soxna Géey Kan ñoom ñett ñoo bokk ndey ak bàyyi sëñ moo Binta Kan nag moo toxal si ab jarbaatam muy sëñ Mamar Anta Sali mii way jur sëñ Touba 1853 nga xam ne 1852 moo gën a siiw ci dikk ak sëriñ bi am nañu bind 1853 waaye kon sëñ bi du fi am juróom-ñaar fukki at ak juróom juróom-ñaar fukki at ak ñeent lay doon te juróom ñaar fukki ak juróomam mat la kon 1852 le sëñ bi feeñ ca Bawal fagaarub Mbàkke nekk ndax loolu la sëñ mat la mu dagana bind sëñ Mbàkke bu so mboolem mag ñi loolu lañ bind man nag li mag ñi bind moom ku ko fi bàyyi loo loo wutee sa yëfi bopp sa sama yoon du jane li ñooñu liñ bind rek ci laa am soxla ku yëpp nag nga seet fu la neex nga def fa la la soob fi la sëñ addina waaye soo demee ci Irwa u dafa wax ne sëñ Mat Lamin daa wax ne Mbàkke fa gaar ba nekk fa la sëñ Tuubaa ganee addina moo doon kër sëñ Mamar Anta Sali danaan sax sëñ Tuubaa fa mu ganee woon addina mujj na dem gaar neen loolu nag am na loolu ci suñu borom di wax dafa ñuy xamal ne sëñ Tuubaa ab duggukaay la ku bëgg a ci yàlla soo duggee ci moom mu yóbbu la ndax kër gam ganee woon addina kër ga mujj na dib gaar loolu nag laa mën a gëm man waaw loolu nag ci 1853 la 1852 kon astafurlah la sëñ bi feeñ foofu ca Mbàkke Bawol bañ toogee ba am ñetti weer lañ fa jóge nag ñëw fii ñetti weer képp la sëñ Tuubaa am Mbàkke Bawol gannaaw bu mu feeñee jamono ñetti weer la fa am waa kay mët lamin ñan baal wax naa sama kàddoo tax nga ñëw ñetti weer la sëñ Tuubaa feeñ jamono ba am ñetti weer ca Mbàkke Bawol way juram toxu sëñ ma Anta Sali najaay mit moo ko toxal mooy Moodu Binte Kan moo dekkoon ja yagi gi ñuy wax jëkkër gàmmo kan señ gàmmo da doon ab taawam rek yàgg fi waaye Moodu Binta fi nekkoon mu toxal ab jarbaatam ndax moo soxna and sëriñ gan ñoo bokk ndey ak bàyyi mu ne ko ñëwal fi man ba war moom mbàkke toxal señ maas ka ak sëñ sàmba tukulóor ka ak soxna kumba ka ñooñu soxna gi kan moo leen jur moo tax soo demee ci téere sëñ Mat Lamin Jóob danga ne ba tey di muy wax fi Serigne Touba ay jaar-jaaram ba wax ñi ko doon jangal baag si ci xam-xam ñi doon jangal xam-xam Serigne Touba ci Serigne Samba ka daf ne ibnu qalat abihi doomi ndeyi bayam waaw mok bayam di serigne Mamadou Sëli seen ñaari lay bokk day ak baay muy soxna gi kan mu jur serigne Samba Tukulóor ka ak serigne maska, ma nek Banjul ak soxna Kumba ka waaw soxna ante Sëli jur serigne Mamadou Anta Mor Binta Kane mooy seen nijaay moom mu nekkoon njaar bi mu doxalee nag bi sëñ bi eh, feeñee jamono ba am ñetti weer nag la ko indi bi mu ñëwee nag gannaaw moom Modou Binta mi ngi yoroon daara wax nañ ne ay dongoom buñ masaa xëy suñu bindee alxuraan day jeex kaamil bi dara dootu ci des ngir dongo yu bari juróom benni fan la daañ bay ba xaw fukki juróom ak ñaar lay ñoral ci dugub fukki sàqi njuróom ak ñaar mu dunde juróom benni sàq njuróom atal juróom benni sàq njuróom kooku kon amoon na barke moo tax bi mu doxalee jarbaatam te sëñ Mabor Anta Seyni ku ne xam ne ne daara la yoroon yor ay dongo di jàngale ab sëñ daara la moo tax bi mu ñëwee bu ne ko kon naa la sëñcal ci xur wi te nekk ci tund wi ku ci soxla ka te des man koo gis daal di koy santal foofu loo waral moo waral ñu naan xuru mbàkke ñu nekk fi nag xuru mbàkke soxna si nag tàmbali liggéeyam bu boobu di root si ci teen bii di teen caaxo bii nga xay kon teen bi teen bu yàgg la ndax teen boo xaye 1853 fekk nañu ñu bënd ko kon ñi ko bëndoon moom lañu ñu bëggoon yéen a ci yéen waa Ndiba moo bëgguñu woon fii gent bëgguñu woon ñi mu fii gent déedéet bëgguñu ko woon kon yéen ñi fi toog nag ba tey lii fekk leen fi ñooñe moom gërëm nañ leen ñuy sikk moom yéen du ngeen ci bokk yàlla leen suñu borom wattu taxaw leen te sàmm leen ci saayir ak ci baatin si rek di ñëw fii di fi liggéey liggéeyam bu rëy bi di wàcc sëñ Tuubaa di ko yóbbu ci Dakar gee di ko fa teg ngir wëgg ni muy mel ci ki ngay boot ak yow miy wëgg muy barab barkeel kon teen bii amul fenn fu dul fii ndax 1853 ba 1852 kon ba 1860 soxna ci di rocc ci ten bi mu juroom ñetti at yo xaye fenn fu ko liggéey amut ci àddina fii dong la am amut feneen mës noppulu du guddi du bëccëg muy jaabante diggante fii ak këram gële te ni ko sëñ ngi daan doon waxee léegi ku la xam ne ni diggante bi xaw naa sore te léeg-léeg danay yanu du àgg du àgg ci kër ga dong yi danañ soxla ndox ndogale ko waaye su accès dongo yi bu accès day sukk ñaari bëti woomu ñu yor xàbb gi tàng ndox bi ba mu jeex bu jógee xar kanam bi day gën a leer mu del si dana ko def lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon ndox du dem yàlla dogal nag ñam jamonoonteel tey ñuy ay ndaw yu toll ci seen ndaw te bëgg lu baax dañ ko daan wax yaay wala ñi naan ko maam andi ma yóbbul la aw yoon andi ma yóbbul la aw yoon te moom ak xàbb la daan roote te loolu mboolem mag ñu jigéen ñi xam nañ ne mag ñu góor ci sax xam nañ ko daa nga nekk ci peen ba mu yàgg nga daje fa ak ab jànq mu ne la bàyyil ma yóbbu la aw yoon moo tax sëñ Moussa Kanaan ma yow la ci jaar yene xàbb lañ daa léeboo ca maam ya yaatiral muhammada dañ daa léeboo naa ma yow loola ci jaare yene xàbb ba nga yuqooli bal booba mag ñu loolu la ñuy wax la ci jaare yene xàbb ba nga yuqooli bal ndax moom ak xàbb la daan roote loola moo a ñu naan la ci jaare yene xàbb lañ daa léeboo ca maam ya yaataral muhammada waaye xabam ko ma waral ba tuubaay wala ngaan robinet yaa ngi wala ngaan ñëpp ni naan kon xabam goge? tey fu jàkk xabu gaa la jagal fu amul ndox rek xabu gaa la amul ndox tey yaakaar naa fii xab gi eh, doon ñëw di fi duy si ci teen bi bu leen neexoon tey sakk teen bi waaye déedéet dañ koo sekkarte ndax robinet yaa ngi fi nii robinet yi nekkul seen kër yi nii waa mu ngoog kër goo dugg fi mu ne nga fa ndox nga fa te ndox nag moo gën a jafe moo daan gental ab dëkk am réew sax ndox da ko daan tax gent waaw ndax ndox moom mooy li nga xay mënta ñàkk ci doomu aadama tey nag robinet yaa ngi dugg ci kër yii yëpp fii kër fi dugg ab robinet ci biir waaw loolee lépp nag roota moom doon jaabante ci diggante bi liggéey boobee la yàlla nangoo loola moo ko waral fii nag ñu am fi juróom-ñetti at Maba Jaxu moo leen fi jëlee Maba Jaxu booba lay xare ngir diine lislaam bi mu ñëwee nag xeex ak ceddo yi fi nekk ba gàññe leen bi muy dem xelam mayu ko mu bàyyi kilifay yi diine lislaam yi ndax bëggul ceddo yi fayu ci ñoom ci la leen jële ci 1860 mbakke ba xuru mbakke gi gent na fanweeri at ak yet fanweeri at ak yet mbakke gent euh, xuru mbakke gent na ko fanweeri at ak yet xuru mbakke gent na ko nit nekku fi dara nekku fi ab néeg nekku fi dara nekku fi fanweeri at ak yet xuru mbakke gent na ko sanc bu mujj bi sëñ tubaa ko dekk liwaat kon mel na ne ko fi nekk ni ko sëñ tubaa dekklee woon <coughs> yaa ngi ko ciy taxawu yaa ngi ko ciy dimbaliwaat ndax sëñ bi bëggutoon fii gent <coughs> doomam la fi yebal soxna Fatimatu Mbàkke muy doomam bu jigéen moom la jëkk a yebal fii mu wàcceb liggéey ci njaarim mu yebal ko fi di doomi soxna xari sill mooy yaayam moom la sëñ Tuubaa jëkk a yebal ne nañ ko indi fii su ngeen demee ngeen jox ko sama baay gàmmu kan nee na ko fa sëñ Momar Anta Sali nekkoon na ma ko fa defal ba ñu agsee sëñ gàmmu dane man de bis bu set bu ne sëñ Tuubaa jox ma bind bu tooy xib ndax man fii ba fi sëñ Momar Anta Sali di nekk ndaw laa du ma kenn xaw ma dara waaye nag nekk na maa ngi ñoo xam ne xam nañ fi dara ca ñooñu la yónnee ay ndaw ñu ñëw ba ñu ñëwee ñu daal di ne nun dey bu daan taxani matum jàngu ci yoonu déegub nete fii lañ daan jaar am ko taxaw ni yoonu déeg ba de fii la woon ñu ne fi lañ daan romb nag sëñ Mamar Anta Sali mu yor kurus ak sombaan di sëñ gàmmo ne leen euh, euh, garab su daayee siis a koy wuutu maanaam janjub siis ñu ne kon nañ ko raas ñu di ko raas di ko raas di ko raas ba yàlla dogal jàng siis ba ñu gis ko am lu des ca niim ga diw aw yeñ moom li mag ñi daax aw yeñ nga xaye suuf si lekk na ko waaye des la ñu door a xam ne fii la sëñ Mame Racine nekkoon foofa lañ denc soxna Fatimatu Mbàkke moo fi jëkk ñëw sëñ Tuubaa indi fi fukki doomam ak benn kon sëñ Tuubaa bëggul mu gent bu fi gentoon bu bëggoon mu gent du fi indi fukki doomam ak benn te daa wax ne ba muy woo sëñ bay jaxate jox ko ndigal mu ñëw sancal ko xuru mbàkke wétalil ma sama rakk jafa ne di maam abibulahi di maam balla aysa moo topp ci sëriñ tubaa xaadimu rasul sëriñ tubaa ne ko abibulahi nee na ma ni nga ma mujj jamono ba wéet su fekkoon maa la mujj jamono du ma la bal nga wéete noonu kon nanga fa dem wétalil ma ko moo tax mu ñëw dëkk sës rëkk ca ba mu nekk fa barab ba man ñi maa ko jëkkoon a tabax gannaaw ba nga xamee ne sëñ Massoura moom dara moo fa defoon ay móol yu xonq yuy am ay bën-bën loola laa fa fekkoon waaye man mii maa ko tabaxoon suy ko xadd ko ba mu def benn bunt ma tabax fii fu ñuy sange ay néew ndax sama rakk daa wàccoon ab liggéey di yuusu moo topp ci baaram mii toog bàyyi sëñ yeddu jur ko xam nga ne yeddu soriwut fii waaw te kii moo topp ci man ñoo bokk benn ndey yuusu biñ koy rob ci armel yi ci taati salaan yi lañ ko doon sange loolu nag xare ba mu metti ma ma dem ci sëñ Abdou Jaxate waxtaan ceeg moom mu ne ma fii daa mel ne def fi dara yombut ndax bari na boroom wërsëg yoo xam ne kenn ku ci ne ñëw na ngir tàggoo fi ngir def fi dara waaye mujjut sotti ma ne ko man daal néeg bu ñuy sange ay néew laa fi bëggoon a def mu ne ma man nga ko waaye yàlla dogal na dimbale na ma ci barkeb sëñ bi maag ña ma ko àndaloon benn bis lañ ko tabax benn bis lan fi ñëw fii ma ànd ak mboolem ay daayira ay birig sax dañ koo jënd far ak ay otoog mboolem daayira ba maçon yaa ngi ci ministre yaa ngi ci léppam ci keroog lañ ko raase ba mu àgg ban fi del siwaatee dañ koo xadd ba mu àgg ñu defar ci biir bi loolu tàmbali naa ko fi liggéey ba booba teen bii daaneel ma fas ko yéenaa sekkar ci loolu lépp kon man <coughs> sama yéene ci fii mel na ne su borom mi ngi koy àggale yàlla li fi yàlla bàyyi ci saay ak ci baat yi <coughs> kon sëñ bi doomam jooju moom la fi jëkk a yebal naa daal di fi yebal sëñ Bay Jaxate mu nekk noonu sëñ Bay Jaxate am fi ñetti at sëñ Tuubaa woo maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina maam sëñ Abdou mii daal di koy yebal mu ñëw njax waaye Cheikh Ibrahima ba mu jógee njàkkar ma jëyi la jubali ba mu demee kër ma jëyi sañ fa daal di fay nekk diir bu néew mu addik sëñ Tuubaa ne ko waxuma googa njax njàkkar gàmmu kan laa wax gàmmu kan ca njax nama ko defal fa seigne Mamar Anta Sali nekkon waxtu tisbar la aksi mais waxtu tisbar la aksi ni seigne touba yoni won ci lañ aksi ndia dañu fekk seigne gamon di jang alxuraan ku ñu wax sëriñ sar Saar doomi bàjjee ni Alaaji Mataar sar ci tax mo jité yoon wa mo wax seigne Gàmmo ne ko seigne bi neena nga defal ko fa seigne bi nekkon seigne Mamar Anta Sali fam nekkon nga defal ko fa seigne gamo ne ah man de jant bu fenk bu ne seigne bamba jox ma bind bu toy ndax man day sëñ Mawar Sali ba mu fi nek man duma dara man boba ndaw la duma kenn waye nak nek na on. ñu fi nek ñu fi nekkon ñuko fekke nek na ak ñuko fekke won dal di wolu makan fama makan fama Yuniko ko mu wooyi sëriñ Mor Xulle dal di wooyi sëriñ ma Samba Kan ko mu Matar saxo daal di woyi sëñ Amar Fati Sarr yónni ko mu woyi sëñ moorloo Lo gaa yaa ngoogu ñooñu nekkoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa yaakaari jàmm di ko liggéeyal fii guddi ak bëccëg. mu ne leen sëriñ bi moo ma jox ab liggéey dafa wax ne soxna Faati mii naa ko def fa Serigne bi nekkoon fa sëñ Momar Anta Sali nekkoon te man booba ndaw laa sëñ Mor la ne ko fekke naa ba soxna jaara da yenoo ti teenu caaxo ndox. di ko yenn ko ci xurwa mako fekke sëñ Mor Xulle wax loolu ne ko fekke na ba soxna jaara di yenoo ndox ci tenu caaxo di ko yenn di ko yenn ko ci xurwa sëñ matar Njaay saxu momit ne ko waaw waaw bu nu daan dem begum nete di fa taxani matum jangu ña ngay romb sëñ Mamar an seli fa buntu jakka ja moyor kurusan kurusa soxbaan ca nep nep ga waaw kay di wirdo. sëriñ Gàmmu ne leen garab su daayee siis a koy wuutu foo gis janjëb siis ñaare garab a fa nekkoon sëñ Mataar Njaay saaxu taxaw ne yoonu nette de mi ngi nii sëñ Gàmmu ne nanu ko raas ba ñu ko raasee fekk ca siis bu toll ci ab xasab mu des ca neb neb ga ñu fekk fa eñu neb neb ga sëñ Gàmmu ne sëñ Mor Lo mii day sunu doom te loxoom set te sëñ Touba moo ko yar te sëñ Touba comme yar moo gën comme yarul gën comme muy sëñ Morlo sëñ Morlo daan wax naan ab armelam su guddi ma saa jot dëgg seen leeraay bi ci Mirina Thiapo moom sëñ Morlo moomee moo yett kër ga fañ def soxna Fatima. moo ko yat ba mu mat ñu def ca soxna Faati Mbàkke bintu Xaadim Rasuul na leen ko sëñ bi joxe woon rek noona lañ ko ca dal di defe sëñ Aliou Sarr wax sëñ Gàmmu ne ko sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul nee na dafa bëgg a yeesal si dëkk bi moo tax ma ne yéen yéen a ngi jàppale sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëkk bu mu bëgg a yeesal ku defee ne mën nga koo gental da ngay nax sa bopp dëkk bi day day day màgg rek waaw ah, dëkk bi day màgg day màgg ku demee mu màgg sa gannaaw rek waaye dëkk bi moom day màgg ne dafa bëgg a yeesal si dëkk bi ci diwin sa laybal sëriñ Bay Jaxate ne ko wittilil ma sama baay gàmmu te nemmikul ma sëriñ Mataar Njaay Saar saa moom ba mu fa amee yetti at mu yebal sëriñ Bay Jaxate sëriñ bi delu wo maam cheikh ibrahima fall babul muridina yewal ko ci nja ne ko so demé nga wetti ma sama bay Budon, bu dom bo don am ay bokku ci kaw suuf ñoy samay bokku njaakar ma jëyi gi ma waxon fa la jëk dem mu jëyi mbay moko sanc bu jigen la am mu jur maawo fall keur balla fall sëñ bi delu wo cheikh ibra ne ko njaakar kan la wax cheikh ibra fall jugaat di wër nja bak si daqaar ak nga nu yoog sëriñ Sayer Gaye ne ko ana nja mu joxoñ ko nja mu ak si nu sëriñ gàmmu sëñ gàmmu dalal ko kon na boo ko xam ne barab bi barab bu tedd la di barab bu sëriñ Tuubaa xaadimu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaakaari jaam yi kon taxawaay bu bu rafet bii nga xam ne yéen a ngi fi kaw fi taxaw te lépp sëriñ bi amoon ci yéene ba di fi yabal ak njabootam ba fukki leeram ak benn lépp nekk fi nee naa tund wi waruñu fee weesale benn néew di ko jëme fenn man nañ fee yem fu sëñ Tuubaa yemale ñooñam rakkam nekk fa ci topp ci moom di caatam soxna jaara sëñ bay jaxate nekk fa kër maam Cheikh Ibrahima Fall loolu boo ko weesoo te ne sëriñ bi ngay jëm foo jëmati ñu ne sëñ bi noppal na leen fii barab la bu bokk ci barab yu sëriñ bi kon nañ ko gën a jàpp te gën koo fonk ci saayir ak ci baatin sëñ jiba jërë ngeen jëf jërë jëfati yàlla suñu borom doole leen a taxawu ci saayir ak ci baatin man araada an yarfaha maa rafaullah bi irtafa sëñ Tuubaa nee na ku jóg ngir na lu yàlla yëkkati ba noppi da a yëkkatiku sëñ bind man araada an yarfaha maa rafaullah bi irtafa ku yëkkati lu yalla yëkëti ba noppi da nga na yëkëti ko te señ Tuubaa mom neena dara jëti yi wala ay satan ko man na min minal wara khafli xufil kenn mënu ci dara mom ko rek day dolliku rek kumu neex moy am kum neexuti neexut it day dolliku rek man arada an yafahu ma maa allah bi indafa neena ku bëgg a tam di jagn lu yalla ñoddi yaay jagnu yaay dem rek way lu yalla ñoddi mom kenn mënu ko yobbu day ñëw rek kon jërë ngeen jëf na leen fi suñu borom bàyyi te wattu leen te sàmm leen te aar leen ci saayit ak ci baatin kon xam naa mel na ne tey day bés bu xat ndax su daje wutoo nag lim dajeel kon ni nit yëpp def laay def damay xëy ñëw yendu fi ndeke di fekk dem naa ci yeneen yitte waaye ñaari barab yoo xam ne yu mel nii ba ñett dese nan ko te ñenn ñu nekk bëgg nañu ma teew fa lu néew néew donte juróomi minute mbaa fukki minute ñu ngi ma ko ci ñaan te sëriñ bi rek a tax nag gannaaw moom doo nga tax nag moom rek moo tax mu jaral nu coono yi ndax ni ko sëñ Mor waxee maa ngi jógee ngelaasiyam ma ngi ca gannaaw jaxaw siin yàlla xam na ko yëpp ndax sa bii ci guddi lañ ma woo sama sët bu fa wàcceb liggéey te ren mooy ñeen fukki atam képp ñeen fukki atam képp khadim gay, ren moy ñeen fukki atam ñeen fukki at kep la am waaw ñeenti doom la fi bayyi te liko waral soxna si dafa cheikh waye ñaar la amoon ëmboob ñaareelam muy ay cheikh di ñaari doom mo xey xey waccu liggey ngir ñu ne suuka rako japp rek biig lañ ma woo guddi wax mako muy sebab set bu mo bëggoon lool nak waaw nga xay bo nit rek ñepp dañoo yoxoo di joy waaw yaay mom bu tam mënta tege ci man ne ma sa xarit ba dem na la wax rek dal daal yiyu man dama wàññi ko dem ba fa baye nak sëñ bi mo jar lepp ci say ak ci batin kon nak ngi sant di gërëm ñëpp di balu ak ñëpp di ñaan sun borom mu bàyyi nu fi ban fekke wat ko diwin ten fekke ko ak tal fekke gu ànd ak tal nu mën xey teew fi ni fi nit ñi di teewe ndax ken warun fe jek ken warun ya mujj ndax yag nañ fe am yene kon nak yalla len yalla fay sëñ diba jërë ngeen jëf waaw yal na leen suñu borom dole taxaw ci sayr ak ci baatin ak ñi ngeen andal bis bi goor bayyi bàyyiwun jigen bayyi jigéen mak bayyi bàyyiwun ndaw no ngi ñaan yalla kep ku fi ñew yalla la sun borom jéggal mum da topati ben bakkar mum la ko bindali sa xalima bakkar na ko dam amin naan nañ ko ci barkeb soxna sii barkeb teen bii barkeb pàkk bi barkeb daxaar gee ak barkeb kam fa teg nga xaye moo a lépp tey kon nag sant rekk ci des sant bu wér ndax xam ne lii xéewale boo xam ne ku ko suñ borom jox xéewale la ko sant rek nga war a def ndax doonul lu yomb du lu yomb de <coughs> du lu yomb kon nag noo ngi balu àq ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan suñu borom boole mu jéggal xanaa kon señ bi ñaanal nu rek faal yaaram sëñ Abdou Salaam moom jiitu nañ ko fa soxna Faati mi leneen wax moo fi jiitu di doomi soxna jaxat sil mooy yaayam moo fi jiitu gannaaw gi nag sëñ Abdou Salaam am na ñu fi jiitu waaye bokku ci ñi fi jëkk waaye nag yàgg na fi ndax ba ko fi sëñ bi indi nag ba mu ci joxe ndigal ñu indi ko daf ne moom fañ koy def bu mu fa fekk kenn bu ko ko fa kenn fekk loolu moo tax ñu ber ko foofu Sëñ Tuubaa moo ne woon bu ko fa kenn fekk bu mu fa fekk kenn itam <coughs> moom sëñ Abdou Salaam Sëñ mu fa fekk kenn bu ko ko fa kenn fekk soxna Faati Jax mi taawub Sëriñ Tuubaa it mu jëkk a defar barabam ba moo ko tabaxoon tabax ba fu jëkkoon a nekk soxna Faat Jax mi nga xam ne mboolem njabootu sëñ bi moo ci mag moo ko fa defoon moo ko tabaxoon tabax boobee waaw waaye lu mën a xew lu ne ku ne xam ne ne leerug sëñ Tuubaa moom ni may waxee rek doomi sëñ Tuubaa moom ak xas dëgg sëñ Tuubaa damay wax naan kenn ku ci am loo tële amul ci sama waxtaan doomi sëñ Tuubaa ak xas dëggu sëñ Tuubaa def ak doom ju ñu koy askanale ku ci tële dara amul waaye ku ci ne saw tur ngay ci ngay gën a wane sa mbir sa tur wa ndax ku ne bu ñu lay tur wala sa bàyyi tuddee bu ñu lay woo ca la ñuy jaar loolu moo tax waaw waaye soxna Fat ja day jigéen waaye ba muy feeñ jamono yoonu murit judd juddoogu yoonu murit ci kanamam la feeñe yoonu murit ci kanamam la feeñe moom yoonu murit ci kanamam la feeñe ba muy ba yoonu murit di feeñ ci kanamam la feeñe sëñ Tuubaa jàngal na ko alxuraan yar ko ci taalibe jàngal ko xam-xam yar ko ci lépp loo xam ne lu ñu war a xabal soxna la moo tax ñu bari ci njaboot am ku jigéen gi sax nit ku ci jàng alxuraan ba noppi dalay yebal ci soxna Faatija ne ko demal nag mu jàngale ak taalibe bi sëñ Tuubaa ci jëmmam yëpp leen na ba tàyyi ci soxna Farja ngir mu jàngale ak taalibe bi kooku nag dari noonu la ko suñu boroom binde woon moo soxna Astu Mbàkke Kajoor daanaka yetti weer a jaar seen diggante seenu mbagante mook soxna Astu Mbàkke Kajoor weer jaar seen diggante ci kamono soxna Astu Mbàkke Kajoor kam bokkal benn baay ak nay di Momadou Abdoulahi Mohamad ci mbooleem doom yu góor yi sëñ Tuubaa Momadou Abdoulahi la tuddoon mbooleem doom yu góor yi sëñ Tuubaa moo ci magoon Momadou Abdoulahi dafa teel dellu ci boromam maga Mbàkke Kajoor foofa lañ ko denc moo ko yaayam ci magoon ci mbooleem doomi sëñ Tuubaa yi Mamadul Kabir door a ñëw Mamadul Yaddaali yi door a ñëw Cheikh mu Al Karim door a ñëw sëñ Modou Moussa mii fi nekkoon ñeenteel bi doom la ci doom yu góor yooyu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuulullaahi waaye moom la yàlla dogal moo fi toog ba wuutu fi sëriñ bi fukki at mu def xalifa sëñ waaye lu mën a xew daal sëñ Modou Moussa moomu lañ koy dàkkentale Mamadou Moustapha mooy Mamadou mi ñu tànn. buñ ko tànnutoon keroog bi sëñ tubaa demee Touba du mën a dem ndax ku toll ne sëñ tubaa fa daan toog ñu xool yow dañ fa gis te mbooleem mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak sëriñ bi nga feeñe ci seeri loxo ñu yar la ndax maam Ceerno ko jàngal alxuraan yar ko tërbiye ko moom sëñ Modou Moussa maam Ceerno ko jàngal booba maam Ceerno ngi fi bi sëñ tubaa demee maam Seexanta ngi fi sëñ Masamba ngi fi mboolem mag ñi it Cheikh Ibra Fall mag ñu mag ñu jëkk ñi ñëpp a ngi fi kenn demut fenn ku ne sëñ Tuubaa bii la fees dell sëñ Modou Sa di ñëw jamono ci seen kanam la ñëwee jamono seen kanam la jànge ñu toog toog ñu ne tey mooy sëriñ bi kon buñ ko tànnutoon du man a dem kon Modou Moustapha ci tur wi li ma doon wax naan doomi sëñ Tuubaa ju ne nan mën na lu ne waaye tur wa nag ci la dooleem di ëpp mo xass dek seigne touba xass dek seigne touba bu teulé dara amul waye bu ñatt nit ma ñent wala juroom jappone fi jess bu legi jang ko jang mu wir ma nga xaye na lañ ko daan jangé legi tay nga gis xol goor ñu yëngu waaw jess bu xolob la tuddu yalla bil xolob da lay yëkëti yobul la ci yalla waaw faaw la ko tuddé so bëggé xaaliss del jang ma way bu nafi soo bëggee am del jàng ma waaye bu naa fi mooy mayi suñ borom yi fi ma daa yi saafi jaalibatul maraaxib li lay ñoddi li nga bëgg la ko yàlla tudde la ko borom tudde di sëñ Tuubaa kon soo amee loo bëgg ñoddee ko jaalibatu ma faatihil bisri caabi mbég la soo bëggee di mbég saa su ne del jàng maat faatihil bisri mën na leneen nag waaye loolu la ko borom tudde Mamadul Faadal di sëñ Fallu noo ci kasu rajab weeram mooy borom ngëneel li ci ngëneel la ko yàgg la dàkk ci lay ko sëñ Tuubaa dàkkental ba muy ñëw jamono fekk na jamono metti raflewee xiif bi ràmm bi ger bi door a jeex kenn amatul dara mu ñëw ne dara sóot dara dara rar ko euh, euh, xaftaan sóot dara dara rar muut loolu la sëñ Fallu wax ràmm meng lépp mu jële ko fi mu ngoog jibe dang mu ngoog loolu la ci teg loolu la sëñ Fallou daal di wax ci làmmiñam wa te lu wax yàlla def loola loola daal di fii ne noonu lañ noonu lañ mel ñoom ñëpp kenn ku ne saw tur sa doole ci lay ëpp waaw waaye nag euh, Cheikh Ibra Fall suñ jàmbaari bopp dar nag doomam ju tedd jooju di Cheikh Moustapha al Karim taxawu ko ci saayir taxawu ko ci baatin taxawaay boo xam ne neexu la waxtaane fii tey ndax su ma ci duggee dana mujj doy waar naa taxaw foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf boo bëggee information yi wóor abonné ci seen biir Lamp Fall Léral du baax mooy joxe information yi wóor ci jamono